بسم الإله مالك الخديم lay tàmbule man xaadimul xadimi wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana wa ala alihi wa sahbihi wa tamkin ñu ngi sant yàlla suñu boroom di julli ci moustapha alayhi salaatu wasalaam safar tero dañuy dajaloo di def ay berne di ko joxe ba bisu màggal bi ñëw loolu bokk na it suñu ndaje mi nga xam ne moo tax ñu tew fii euh, ab taalibe amul lu dul ndigal ab taalibe amul lu dul liggéey xidma loolu ñu booloo it takku ngir fas yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ci ci bisam bi nga xam ne mooy fukki fani ak juróom ci weeru safar ñu ko ci santale boroomam safar gi ñun dañ koy def bu weer wi feeñoo bu weer wi teroo rek ci lañ koy tàmbali ndax bañ nañ ko sax ba bis bi nga xam ne ci lañuy jàpp ne ci la weer wi feeñ dañuy tàngal kafe ak i berne di ko séentoo bis bi kon te ñu jox ci ay programme yu bari ndax biñ koy doog a sos kuréel gi amul doole xëy na bërëb bi ñu ne fi lañ ko sose woon yàlla def bi at mi ñëwaatee ñu ànd ko dayra bi nga xam si ne mooy màkkaarim axlaa ku ne xam ne ne murid amuñ lu màggalu Tuubaa ndax mooy bis bi nga xam ne sëñ Tuubaa nee na bu dul kon ak demam gii wala nasaraanu te kon billeex ñëpp dem nii niiraanu kon nag bis bi nga xam ne moo ñu tee dem sawara ñun moo amuñ lu ko ëpp moo tax moom yaakaar naa man ba màggal gi passé daaw lañ tàmbali woon a wàcc ba ren xëy na nag ndigal day tombeek première sax waaye ñun tàmbali woon nañ daaw ba ba weer bi ba màggal gi jàlle bi suba gi rek waaw fa lañ tam fas na yéene fañ tolloon daaw fas na yéene yokku fukkam incha allahu taala bu déwee na ñu fas yéene teg foofu waaw daaw nag yàlla dogal na defoon nañ ay xéewal ay bernde wax dëgg yàlla tasaare ko ci corniche yi euh, wër ci kër yi am na bis boo xam ne tamit sama benn mag moo ko doon def ca kër ga booba miinanteegu ma ak gars waaye booba xéewal yi fekk nañu fa te boobaale yaakaar naa daaw la ñu ne ay mbokki taalibe yu nekk fi daari bi sëñ Abdul Karim ñoom ñooy toggi xéewal di ko indi boo bokk gu ma woon ci mbooloo mi loolu ñu déggoon ko mu neex ñu lool kon lool di dox ba ñun ñu bokk ci ñu dikkee tamit doon nañ organiser ay jataayi xasida boole kooki bernde bu ñuy dee jàng xasida ñuy bernde ba nopp bernde yi jeexee ñu ñaan bu tawee bu jànkat bi ñëw bu ëllëgee beneen jànkat bi ñëw noonu daal lañ ko doon defee ren nag bëgg nañ ko yokk ba incha allah ngi sës yi xam nga xam ne ñetti fan yi ci sës mu ñetti fan yi sës ci màggal gi la waaye du tee boobu noonu dañuy déplacé mbir mi yóbbu ko ci kër yi waaye mag benn fan fan safar bi ba fukk ak juróom ya moom ca barab ba la ci sées ba daayira bi bañ ko sosee ak léegi rek mën nañ ñeenti at li ko waruloon mooy comme ñun amuñu lu dul sëriñ bi sa moom bisam bii rek la am sa comme li ko sëriñ bi wax sànq rek na su Musaa Ka waxee naan bu doon woon demam gi wala am nasaraan ci kon bi ku dee dem safara kon ndeke moo ñu moo ñu safara lépp lu ñu am rek dañu ko yemale ci bis bi daañu ko bañ koy doog commencé ay ñaari junni léegi bis bi suñu borom yokku na ko ba léegi daanaka mille danañ ko fere wala lu ko bol million ci ci kaw ci mbokk taalibe yi nga xam ñoo ñu wër daanaka daayira bi léegi yaatu na ba génn dem na dem na Europe dem na fépp ci. adduna bi léegi Brésil sax am na mbokk taalibe yi nekk foo xam yoo xam ne dañuy def jaayante ci weeri Italie Espagne fépp rek mbokk taalibe yaa ngi fay jaayante ngir ci bis bi seen ñaq ñoo ma ngi ko def ci bis bi bis bi ni ñu ko daan defee mooy comme corniche bi rek lañ ko daan yemale waaye ren dañu see bëgg indiwaat yeneen soppi yoo xam ni nekkam sëriñ bi dafa woote benn safar bi ci jumaa ji noonu lañ ko bëgg àndandoo ñu mbokk taalibe yëpp demee ko ci jumaa ja ñun waa daayira Cheikh Abdou Karim bépp rek ak mboolem taalibe yi dëkkee daamaatu ñoo ngi leen woo ñu àndandoo demee noonu sëriñ bi jumaa ja defee ni ko daan defee rek yokk yokk xewel yi bu loolu weesoo tamit dañ daan bis bu nekk rek dañ koy yemale corniche waaye ren jaww yi dafa am laaj yoo xam da ko indi ci ci mbir yi bëgg ko soppi ba liggéey bi gën a mën a yaatu koñ bu ñu dem rek boo liggéey ñu jàll beneen koñ liggéey sëñ Tuubaa noonu rek la kanam rek laa ma amut tànk ginnaaw kon bis bi daal ñu ngi si woo mbokk taalibe yi lu si mën na lu si waay daañ jàppee ñu jàppee lu ko raw nga xam ni bis bi defaluñ ko kenn suñ bopp lañ ko defal ndax lépp lu ñu si am rek suñu bopp la waa daayira bi ci ñoo ngi leen si woo di leen soñwaat bu baax feddwaat laxasaay gën a góorgóorwaat gën a àndowaat gën a nekkaat benn teg yi tamit fexe ko matal ndax am na sas yoo xam ne moom képp ci bokk ci daayira bi rek dafa am sas da nga koy matal kon nag ñu ngi woo waa daayira bépp ñu fexee matal sas bi balaa bis bi ndax bis bi daanaka ñëw na daanaka boo xool lisida madu fukki fan sa ñun dañ juróom-ñetti fan fukki fan ak juróom-ñetti yëpp la ñuy la ñuy di si woo mbokk taalibe yëpp di soñuwaat ñëpp di leen si woo bis baa ngi noonu ñaan suñu borom yóbbu ñu sa lépp lu ñu si liggéey rek sëriñ bi nangu ko waa axiru ndax wa alhamdulilahi alamin lay tàmbule man xaadimul xadimi